kàddu yu Momar Ndao bu ASCOSEN waruñoo gaaw a tàccu ndax njëkki gouvernement bi siiwal yëfi mënuñu ko jëfee tant que waxtaanuñu ak conseil de la consommation si loolee sax le gouvernement bi waroon a njëkkee. comme produit la yoo xam ne dañ ko homologué pour ñu changer ko il faut que ñu woo consommateurs yi ñu toog ñu woo ñi nga xam ne ñooy jaaykat yi ak producteurs yi ñu toog def réunion wax ba d'accord ci benn prix ne lii la su ko defee ministre bi jël arrêté. wax ne prix bi lii la. ngir wàññi njëgu dund bi fii si réewu Sénégal si ay kàddoom faaw rekk nguur gi fexe ba lawal ñi njëg yooye si yeneen xeetu produit yi askan wi di dundee. Euh, prix yi nga xam ne moom lañ annoncé nit ki mën na ko respecté ba pare yokk leneen yokk ton comme ni ñu ko defee yokk ton yokk euh, meew yokk soble comme pomme de terre et cetera léegi moo tax ñu ne kon lépp loo xam ne moo jëm ci li ñuy dundee chaque jour na ko état boole ci yi nga xam ne moom lay fixé. SOS consommateur moo ngi it rafetlu dogal yi nguuru Sénégal jël. waaw dañ koy rafetlu waaw di wax ni nañ dolli parce que dogal yi baax na mesures yi baax na euh, mais xam nañ ni ay mesures yu njëkk la que dana am certainement yeneen mesures yu ciy topp. si kàddu ya ma Massokhna Kane bu ñu yem rek ci wàññi njëg yi nañuy saytu bu baax a baax qualité produit yi xool ndax jaar na yoon wala déet. njiital SOS consommateur di sàkku si nguur gi ñu tëggaat conseil de la consommation. waaw oh, dafa am ñoo xam ne nii ñu ngi nekkoon ci système bii passé ci gouvernement bii passé yoroon affaire prix yi yoroon affaire commerce ñooñu dañ leen gis ni ñoom ba tey ñu nga fa di wax lañu daan wax loo xam ni daara dëggu ci nekku ci dëgg donc danger bi mooy ñooñu bu ñu continuer nekk fi du sotti. mu di Momar Ndao ak maître Massokhna kan ñoom ñaar ñëpp ñu ngi sàkku ci nguuru Sénégal it mu jël ay dogal yu ama am solo bi la yoon ba fexe rek ba ñu topp jëfee yile dogal ñu jël ñeel njëgu dund gi